benn importance euh, man bëgguma verser ci affaire bi. d' accord mais mais mais li tax ñuy taxaw foofu mooy ni yaa ngi wax consommation yaa ngi wax nii mais da ngay dégg ñeneen ñu ne njëriñ loo fekkee parce que réew mi dafa jëm ci tension boo xam te mën na am yi ngay wax ni duñ ko fekkee moo tax nit ñi taxaw. Euh, gis nga F24 seen taxawaay. non yëpp la ñu war a bàyyi nangam waaw waaw. moo tax la ñu war a boole. oui oui ko est ce que comprendre nga atmosphère bi ñuy dund jamono ji ci langue politique bi. Oh, est ce que waaw waaw. atmosphère bi atmosphère bu bu doy waar la ah atmosphère bu dangereuse la te loolu defe naa ñëpp xam nañ ko ñu war a jóg nag hmm. ñëpp jógaguñu am na ñu jóg euh, mooy f bi ngay wax société civile bi aussi ci lañ hmm. bokk hmm. je pense que religieux yi aussi ñu ngi wax donc kilifa yëpp war nañu wax parce que bu ñuy boo leen déglu bu ñuy ñaan sax ci ay jotaay dañuy ñaan jàmm ci réew donc ñëpp xam nañu Sénégal fi mu nekk Euh, jàmm la ñu bëgg mais ay danger am hmm. boo génnee ci circulation ba gis euh, force de défence et de sécurité yi ni ñu mobiliser nga xam ne ñoom xam nañu ni y une situation bu dangereuse bu fi nekk loolu nag lan moo ko sos lan moo ko indi ñëpp xam nañ ni politique la c'est des problèmes politiques boo gisee ñuy woote ay ay ay dialogue yooyu yëpp xam nañ ni danger am na dañuy ñaan bu ñu taal réew mi hmm. parce que nit ñi déjà lekk ak naan fu ñu ko amee ak euh, lu ñu dunda lu ñu fajoo lu ñu transporté woo fu ñu dëkk et tout ça rek doy na leen bu mag tubay bu ñu leen ci dooleel taal dëkk bi te fi fitna boo xam ne bi euh, kenn dootul am jàmm mm. déjà ñu ngi tere ku jaay essence euh, ñu ngi wax càq-càq ñu daw et cetera dëkk bi dafa dafa dafa wéet fi mu nekk mm. parce que ñu ngi xaar événement yi nga xam ne moom mooy am mm. situation bi wax nga ko situation bu dangereuse kan nga jàpp ni moo ëpp intérêt ci fexe ñu jagal ko parce que woote na woote euh, dialogue jàpp nga ni ci contexte bu ñu nekk war nañ ko dem wuy ji ñoom acteurs yëpp ngir ñu fexe nu ñuy def ba. non acteur acteur bu ci nekk. da ngay analyser est-ce que war nga dem wuy ji wala déet nga joxe sa position ñun déglu nañ position yëpp. oui mais euh, ñun li ñu xalaat mooy. Hmm. Euh, termes yi nga xam ni ci la ñu wootee. vraiment du tellement ku bëgg a parce que boo buggee dialogue dëggantaan hmm. d'abord dafa may préalable yooyu teg ci yow yan maanaam doo commencer par wax ne hmm. euh, dëkk bi amul benn problème amul détenu politique dëkk bi jàmm rek moo fi am fi jàmm rek amee lan la woote dialogue pour lan bu fekkee jàmm rek moo fi am benn danger amu fi dialogue bi lan mooy nekk objet bi parce que hmm. am na ñoo xam dañ ni pour affaire troisième mandat bi moo tax ñu bëgg dialogue am na ñoo xam ni dañu wax ne bon euh, procès yi nekk en cours dañu bëgg a éliminer des des candidats éventuels loolu yëpp xëy na loolu la ñuy bëgg a dialoguer xëy na loolu moo tax ñuy woote dialogue mais dañ war a woote ci terme yu leer ak ay terme de référence yoo xam ni ñëpp dañuy xam ne lii moo tax ñuy woote dialogue bu ko defee euh, kii mais am na ñoo xam déjà répondre nañ am na ñoo xam ni parce que dañu gis ni seen intérêt mooy ñu dem répondre déjà hmm. sans ñu xam euh, contenu dialogue bi terme de référence su dialogue am na ñoo xam dañuy laaj terme de référence yooyu am na ñoo xam dañuy laaj euh, des gestes euh, yoo xam ni geste d'apaisement lay doon maanaam détenu ñu tey ñi ci ëpp ñëpp xam nañu ay détenu politique la hmm. même bu chef de l'État waxee ñu du ñu loolu amul bon dafa peut-être en tant que responsable politique mais ñëpp xam nañ ni ñi ñu jàpp ñëpp euh, ñi ci ëpp en tout cas ñu ci bare bare ay détenus politique lañu. Hmm. parce que dañ leen jàpp parce que dañu bokk ci ay parti joxe seen opinion et tout ça loolu mooy dëgg yi. Hmm. Euh, parce que fii ñu nekk nii euh, laajuma avocat bi mais ku fekkee xam langue politique bi xam ni mu doon doxee ci ay jamono yàgg boo fu ñu ci toll. kon suñ la dégloo mooy ni waxtaan bi mënut a ñàkk. mais waxtaan bi lu am solo la lu ah, baax la. te ñëpp ci war a. wuyu waaw le maximum. Ah. maximum nag boo ko bëggee. dangay ngay ubbi lu yaatu. mais am na façon boo xam boo ko waxee yu bare du ñu du ñëw parce que ils se sentent pas concernés dañuy yaakaar ni yow di tax ngay dialoguer sa intérêt rek moo tax ngay woote. Hmm. mais wootewu leen loo xam intérêt askan bi yëpp la loo xam dafay régler problème yëpp dafa mel ni dafa am ñoo xam dañ leen di exclure euh, indirectement dañ leen di exclure de façon implicite. maanaam du ñu wax loo xam ni ñoom dana tax ñu bëgg ñëw bokk ci dialogue waaw wala ñu def loo xam ne ni dana tax ñoom ñu bëgg ñëw bokk ci dialogue moo am na ñoo xam ne xaaruñu sax waaw dañuy jékki rek ñoom bi ñu déggee dialogue rek lañ ñu acca hmm. waaw population bi nag je pense que ñun ñëpp bu ñu sañoon dialogue am hmm. que waxtaan quand même mujj buñ ko bu fa waree mujj nañ ko njëkkee hmm. donc bu sañoon ku sañoon loolu lay doon mais dafa am condition yoo xam ni moom mooy existe pour ñu mën a wax dialogue ñëpp mën ci ñëw bokk ci te conditions yi ñu gisuñu ko. gis ngeen ko alors euh, ci pàcc boobu aussi am na ñu bëri ñu jàpp ni euh, ku mel ni Ousmane Sonko teel wax ni dewuma euh, xëy na oui am na ci droit comme ni ñu ko waxee. loolu dafa joxe ay raisons ah, ay raisons. laa wax ni fa joxe ay raisons yooyu justement laa bëggoon tax. comme ni ko ñeneen defee aussi defee exactement. nest pas mais ñàkk cee bokkam moom. ndax ci li nga gis yow mi nga xam te ne yàgg nga ci ci ci ci ci bàyyi xel politique yi muy doxee luy manqué mbir yi wala ñàkk cee teewam. Ah, waaw nécessairement xam naa ni dialogue boo xam ne Ousmane Sonko bokk ci docteur Abdourahmane nee na bokk ci ak ñeneen. ñu xam ne nee na bokk ci. ah Mimi Touré ay ñoom Mimi Touré euh, nee na bokk ci. Déthié Fall également ci. Malick Gakou ñoom Malick Gakou te xam nga ñooñu ay acteurs yu am importance lañu ci politique bi. donc finalement ñan ñoo ciy bokk loolu mooy question bi ah parce que li ëpp ci opposition bu ñu nee bokkuñu ci dialogue bi finalement ñi ànd rek ñooy dialogué ñi ànd rek ñooy dialogué ñi ànd rek nag bu ñuy dialogué ban problème lay réglé. du fi jëlee temps parce que ñun dañu yaakaar ni dialogue buy am parti yëpp en tout cas parti yi problème yi. te loolu boo ci génnee opposition lu fiy des. maanaam parti majorité bi waaw waa majorité bi rek moo fay nekk waa majorité bi rek bu ñuy dialogue fan dialogue bi ban objet lay am ban objet am ak ban jeexital lay am bu fekkee opposition bokkuñu ci maanaam ñu gën a représentatif kan mooy cristalliser opposition boobu waaw mais ñun ñëpp ñun ñëpp xam nañ ñi nga xam ne ñooy opposition dëggantaan xam nañ ko ah. am na ñoo xam ni dañoo woy seen bopp opposition hmm. am na sax koo xam ne kii nee na moom mooy chef de l'opposition waaw <laughs> ah, loolu yëpp gis nañ ko waaye ah, ah, bërki dem rek nguroog soxloon <laughs> bon tey bu dee moom mooy chef de l'opposition dégg nga bon bu ko neexee <laughs> am na ci droit am na droit wax ko mais picc yi naaw sax xam nañ réellement opposition bi ñan ak ñan ak la donc te nguur gi aussi xam na ko hmm. donc nguur gi bu sañoon ñooñu danañ bokk ci dialogue bi parce que mooy tax dialogue bi crédible mooy tax même waa bitim réew xam ni Sénégal ñu ngi dialogué. Hmm. waaye waa bitim réew bu ñu xoolee ni Sénégal dañu woote dialogue d'abord terme yi ñu ko wootee ak atmosphère bi ñu ko wootee eh, amul ay geste d'apaisement yoo xam dafa war a jóge ci ki woote yoo xam ni bi day day kii mais eh, bu fekkee ni yooyu amul nit ñi duñu bëgg a dem dialogue d'accord sànq da nga ni président am na nu mu waroon woote dialogue bi ñëpp ci santé seen bopp mais ni mu ko waxee dafa am ñu mu exclure nga jàpp ne xëy na loolu limite la ci woote léegi lan mooy limite opposition bi ndax danga ànd ak ñi jàpp ne aussi ñoom it teel a posé seeni conditions nañu bàyyi nangam bu mu waxee troisième mandat nangam te demaguñu est-ce que loolu jàppoo ne ay limite la ci anam gi ñu ko posé. non ay conditionnalité la. du ay ah. limite ay ay conditionnalité la. Ah, dialogue daal yow boo wootee boo wootee yow waxtaan woo xam ne waa kër gi yëpp la la concerné parce que kër gi moo am problème nga bëgg woote waxtaan waa kër gi yëpp. est-ce que di nga ni damay woo aawo bi rek woo sama ñaari doom yu góor yi woo sama benn jarbaat bi ñi ci des bu leen neexee ñu ñëw mais en tout cas déjà du ma leen jox ñu lekk mais bëgg naa ñu ñëw ci dialogue bi xam nga loolu dafay dafay faussé affaire bi dès le départ te dialogue bi niñ ko wootee dafa faussé affaire yi dès le départ moo tax am ñu teel a wax ni ñoom kat dialogue ci condition yi ñoom d'accord ñu ci c'est leur opinion c'est leur point de vue hmm. dañ leen ko war a nangul comme ñi nga xam ni dañu ni ñoom dañuy dem dialogue ñu nangul leen que ñoom it dañ ci gis seen intérêt moo tax ñu dem d'accord ñi wax ni dañu war a bàyyi ñu ñu